maaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ñu àddo fii ci kër Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murit ci ziar bu am solo bi nga xam ne soxna maam Issa Mbacké bintu Serigne Modou Fati Khari njiitul fédération ahlu café baaxoon na ko def murit xam ngeen ne bokk na ci jàmbaaram euh, weer wi nu toll muy weeru tabaski muy dajale ay xar yu bëree bari ànd ak mbooloo ahlu café mépp ñëw fii jébbal ko Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murit loolu nag tey jii noonu la ko waaje gis ngeen soxna si mi ngi ci biir euh, incha allahu taala sëriñ bi mi ngi nii di waaj a génn su génne nag ñu daal di ànd ak soxna maam Issa Mbacké euh, ziyaare ko euh, tàllal ko suñu loxo mu ñaana ñu soxna si léegi bi muy def ci yoonu murid gën a yàgg ndax xam ngeen ne ci kanam tuuti incha allah ñu ngi koy xaarandi fële ci kër sëriñ Touba gi ci jumaa ji waaye nag balay boobu mu joxoon rendez-vous soxna maam Issa Mbacké fii ci Daarul Minam nekk yow kat yaag sa waa daayira maa ngi leen de xaar kër gi ci Daarul Minam su ngeen dikkee su ma leen dalalee ba noppi nag doog a dem ca kër gu màgga looloo tax Serigne Mountakha Mbacké xalif eh, sara kullu murid nekk nii di waaj a fekk si soxna maam Issa Mbacké ci mbaar mi mu nekk ak mboolem fédération Allô bokk yi kon topp leen ma ñu ànd ak suñu caméraman tàbbi ci biir mbaar mi jël ziar bi jël soir àndaat ak bokk taali bi jaa ngeen jëf digganteeg ngërëm mooy amul fenn fu mu nee na nee na kóllëre ak cofeel gi amul fenn fu mu yem waaye dañ lay bàyyi ak rek mu fay ñu mu fayal ñu la nee na Mbàkke sedd na ceew guyu gërëm nañ ko a nee na gërëm na la bu baax a baax a baax daañu fas yéene ànd ak moom itam nee na dana fas yéene ànd ak yow itam na mi ngi ñaan tam sa maam gàttanu laan ngërëmam na tam mi ngi ñaan suñu borom wéral la te ñi ngay àndal ñëpp suñu borom wéral leen ci barke Serigne Touba nee na ñu yàgg fi lool nekk ci liggéey bi nekk ci liggéey bi ba gën cee mën a àggale suñu yéene nee na xam na yéene ji nee na gis na yitte ji nee na xolam seet na bu baax a baax. nee na taxawaay bi ñëpp xam nañ ko. nee na te suñ borom yàlla mi nu bind moo ko gën a xam. nee na sëriñ bi liñ koy liggéeyal moo ñu ko gën a xam. kon nag nee na suñu xel dal baax a baax Mbacke. amiin Mbacke. na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal. doxaguma ko damay kii ba noppi tàllal ba noppi. soxna woon. amiin bàcc sëriñ Tuubaa ñaan gi nag. sëriñ ñaan gi ñu def ci ndox mi. ini bàyyil bàyyil mu benn butéelu ndox ñëpp bokk jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw bi ñu ànd ak yéen fii ci siyaar bi ni ma leen ko waxee woon ci ndorteli gis ngeen Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid génn na ñëw ci mbaar mi dalal fédération Allou Café ci njiitu soxna Maam Issa Mbacké bintu Serigne Modou Faty Khary waxtaan ak moom kaddu yi bàyyi ko ci moom nag dañuy bàyyee ki nga xam ne moo yor kaddu yi soxna Maam Issa Mbacké nag coordonnateur u daayira Allou Café muy Cheikh Abdoulaye Dieye mu yëkkati kaddu yi nga xam ne moom la Serigne Mountakha dénk soxna Maam Issa Mbacké dénk waa daayira Allou Café ko ñun ñëpp ñu ko ndax albarakatul mutabarakin Cheikh Abdoulaye Dieye bismillah ziyaara te di leen ndokkeel baax a baax di ñaan sama kàddu fekk li ci jàmm di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha ibnu Cheikh Mamadou Bachir yàlla na ko suñu borom lool te may ko wér defal ko njabootu Serigne Touba gépp ah tey nag euh, fédération Ahlu Café ni mu ko baaxoo defee waxtu wu nekk noonu la ko defee mooy at mu ne bu tabaski desee ñeenti fan dañuy ñëw fii ci Daarul Minan ziar Cheikh Mamadou Mountakha loolu nag yàgg nañ ko def te booba fekk na Serigne bi nekkagul woon Cheikhul Khadim ren bi mu nekkee Serigne Touba tam bi ñëwee wax ko ko daf ñu koo nangul Euh, jóg war a jëm ci kër Serigne Touba gi waaye jàdd ci mbaar mi saafonte ak soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe te yaakaar naa ku xam soxna maam Issa xam ñi mu àndal xam ne yàgg nañoo nekk soppe Cheikh mun Mountakha te man shurman tuhibbu wa in zatat bika daaru wa alamin dunihi sahlun wa aw xaaru loolu sëñ bee ko wax ki nga bëgg sopp ko bu ay montagne doxoon sa diggam ak moom tam da nga ko xuus dem ziyaare ji ko alhamdulilah nag bi nga xam ne suñu diggante ak sëriñ bi lépp rek bànneex la macha allah. Mm-hmm. ñu ñëw ziyaara ko euh, ziyaar bi tam euh, alhamdulilah rabil alamin kàddu yi sëriñ bi wax. Mm-hmm. Euh, sax am na ku ko doon bëgg a waxal waaye dafa mel ni sëriñ bi dafa nanguwaat kàddu gi ci moom. Mm-hmm. ngir am gum am yéene ci soxna si. wax ma ne waxal soxna si nee ko kóllëre gi nga xam ne. moom laa séq ak moom. te maamam sëriñ Touba rek tax kóllëre googu maa ngi koy feddaliwaat ci moom. gi nga xam ne moom laa am ci moom te maamam sëriñ Touba tax. cofeel googu maa ngi koy feddaliwaat ci moom sama xol sedd na guy ci moom te koo seen muy wéy bëggul lu weesu xolub Serigne Touba sedd ci moom te nee na sama xol sedd na ci moom yëmu ci waaye dana sedd na guy ci moom kon maa ngi koy ñaanal moom mbooloo mi mu àndal yal na leen yàlla aar te may leen gërëmal Serigne Touba loolu tam yaakaar naa genn ñaan goo xam ne gu ko dàq la amut waaye bi mu paree tam taftal na ci ne ko na gën góor góorgóorlu jëm ci kanam ndax s Touba boo koy liggéeyal loo góorgóorlu góorlu doyut da war a yokk góorgóorlu gi kon nag na ngeen taxaat seen laxasaay gën a góorgóorluwaat te xam ne dara nekku fi lu may liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba rek moo fi nekk nee na moom bang bi mu toog liggéeyal Serigne Touba képp moo ko fi bàyyi képp ku ñëw fi moom tam liggéey Serigne Touba ci la lay woo ci lay ànd ak yow te leen loolu yàgg na cee ànd soxna si lu tey eh, démb le woon tey soog a ñëw kon nag loolu rëy na lool ñaanal nañu tam lu nu man ren su ëllëgee yàlla nañ mën lu ko loolu nag dara lu ko gën a rëy amut mbokki taalibe boo gisee mobilisation bi ñu def tolloo ak dayob siyaar bi ni mu toll ndax dama ne leen woon bu njëkk bañ daan siyaari sëriñ Muntaxa dëgg la booba sëñ Basiru la woon soxna jaara la woon waaye tey sëñ Tubaa da cee dolleeku te sëñ Tubaa mooy lépp kon nag nañ méngale siyaare bi ak tolluwaayu jëmm ji tey ak li yàlla dëxañ ci moom ak sëriñ Tubaa waaye itam nit ñi itam appel boobu wuy see nañ ko noonu ñëw nañ ci na mu gën a yaatoo fii ba bitim réew daayira fi nekk ñëw nañ koo xam ne mënoo ñëw itam yóbbandi nga sa addiya ñi mënta ñëw ñëpp yóbbandi nañ seen addiya lenn li jënde woon nañ ko ay xar ba mu noppi woon li ci des nag biñ koy laata saytu ba sëriñ bi egsi sëriñ bi dugg si ñu jël lam doon ca koppar jox ko ko liñ dagg tam ci ay carte maam jaara xaymaaguñ ko waaye ay junni junni junni carte maam jaara la ndax xam nga ne benn benn membre Euh, daayira maam jaara bu nekk année bu nekk obligation la ci moom mu dagg benn carte maam jaara 2000 francs carte maam jaara itam li tax moo am importance mooy lépp lu sëriñ Muntaxa di liggéey lu ca Poroxaan ci la koy liggéey kon loolu am solo la moo tax fédération Ahlu Café ñëpp dagg nañ seen i carte nañ ko war a dagge ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim ñaar ak seen i bu ñu daggee ay carte maam jaara na yéeme te tag carte bi démb ko tàmbale ci àjjuma daay yi nga xam ne nag ñoo xaw a sori ak ñi ne ci biti dëkk bi ñoom ñoo ñëw tey doon dagg te fi mu nekk nii jàpp naa ne dagg bi du yegg kon loolu mooy wane ne liggéey bi jox nañ ko solo soo xam ne solo su réy réy la kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu soxna maam Isa ak turu bi nga xam ne ñoom ne ñu ngi leen di sant di gërëm di ñaan lépp lu am ci ziyaar Touba ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah a xam tamit tey sa yëg-yëg ci jëf ji nga jëfal tey Cheikh Khadim ah, bismillahi mina sheytaan rajo bismillahi rahmaan alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ñu santaat Serigne Touba mi suñu yaakaar teeg ëllëg di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax a baax day am mbégte nag di yeesal suñu njëmba ci Cheikh Massamba bisu tey bi ndax lii la ñuy wax rek liggéeyal Serigne Touba amu tànk ginnaaw ndax bañ ko tàmbale ci njëlbeen ko oyofoon na lool ndax boobu sëriñ Muntaxa boobu sëriñ Muntaxa la boobu nekkagul sëriñ Touba mu di ñu may bis bi at mu jot ci mbaaru Maam Jaara mais ñun dajee fi ñun ñëpp fédération Maam Jaara bi toll nañ ci téeméeri daayira ñett fukk léegi te koy tàmbali ñaari daayira lañ woon mu mayoon ni bis bi ba mu doonee sëñ Muntaxa may ñu ko at mu jot ren biñ ko ko ñaanee tam dañ ma fas naa ko ànd ak yéen ba mu sotti coleet te dinaa leen ko may mu ñëwaat toog fii toogee fi jëmi sëriñ Touba jàkkaarloo waat ak mbooloo mi ñu jébbal ko xarit tabaski carte maam jaare yi nga xam dagg nañ toll ci ay 3 millions ren ci ay carte kon loolu yaakaar naa ne tey ji yëg-yëg bi ma ci am képp ko fi teew yëg-yëg boobu nga am xol bu sedd rek xol bu sedd rek ak mbég rek te xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo am solo waaw. ñu ngi tey tey jëf gis nañ tamit nga indi ay xarit Tabaski waaw xarit tabaski tamit dañ ko ci daan boole ci liggéey bi saa su nekk tuddee ko tabaski maam jaara tabaski tabaski maam jaara la daayira bu nekk dañ la laaj xar ku mënta am xar ñu dajale ñu bu dee fukki daayira wala juróomi daayira yu xam ñu jënd xar liñ ci mën na li ci des ñu dajale ko muy xaalis ñu jox ko addiye si mën taxa bokkut ak addiye jooju bokkut ak carte maam jaara yi loolu lépp tamit jébbale nañ ko tey di sant Sëriñ Tuubaa bu xam ne dañ ko tàmbalee ba léegi at mu jot day gën a yokk rek jërëjëf ni topp lii mooy siyaar bi nga xam ne soxna maam Issa Mbacke bintu Serigne Modou Fadi Xari mi ngi ko doon def ci teewaayu mbooloo mu takku waaye groupe presse yi nga xam ne nag ñoo àndandoo ñoom ñëpp fas yéene ànd ak soxna si ci ci biir réew mi ak biti réew ngir di ko taataan di ko jotalaatal askan wi ndax xam ne ne njëriñ rek la ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu mën cee tudd Serigne Cheikh Samb mi nga xam ne mooy suñu jëriñ ñun ñëpp buñ ko tuddee muy bale bokk ko bokkal yëpp waaye maa ngi feggu ak ci wàllu caméra Serigne Assane Diop ak Serigne ak Serigne daam Dia ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ñu gën ko xam ci Baye Dame Dia mu teewal fi Abdoul koy siyaare bu baax a baax waaye di siyaare itam nag euh, bokk nga xam ne ñoom yëpp ñi nga ànd ak ñun ci euh, yi nga xam ne day tasaare wax ju mel nii ci biir réew mi ak biti réew ba kenn ku nekk mën ko jot bokk yi kon dig daje ci yeneen jotaay ak seen bokkum taalibe moo waxtaan ak ndongal Touba Serigne Touba jaral na ma waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëfati seriñ Touba